bi sifflé na nyari heures jot na jot na ñaari minutes moo ci tegu ni defoon une minute de silence ci papa yi nga Fatou Adama muy suñu papa Adama Dialy yal na ko yàlla yërëm ndeysaan jàppante nañu Pakala ak Mbaytin ndeysaan Pakala Mbour montagne Pakala ñu woon ginnaaw Lamine wallaay gis nga lamb dellu na cosaanam déggal ndey faatu la muy woy fu mu jëmati ndeysaan boo déggee lii sax xel day dem ci woy ya ndeysaan du ñàkk lamba ni mel fan si lay woyal mbaytin bakala daan na mbaytin bakala daan na mbaytin Pakala daan na Mbaye Tine